asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 13 janvier 2020 ñu ñëw ci yëglekaay yi moo xam sunu làmbala la record wala Leewtoo TV bu dee yëglekaay bii di sunu làmbala moom ci diggante amaa Baldé tey la xëy ak ka nga xam ne moom la war a bëreel muy mooduloo mu mel ni ki nag foofa moom coow la fi mu nekk nii tàbbi na fa la ko indi nag maanaam sax ba wër lig daal ñoom ñoo bokkatul kàddu wala ñoom. ñoo bokkatul déggoo ci la nga xam ne nii mooy combat ba ci am nga ak ñàkk gaa am nga ci biir lig nekk ci kaso bi wala mu génn loolu mooy li nga xam ne nii tey moom la yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw andil ñu ko waaye leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci mooy coow loo xam ne ni dox na fi mu nekk nii wala wax joo xam ne daal ñu ngi koy wax fan nii yëpp diggante Balla Boy Niang ndax Balla ne na dootul bëre ak Boy ñang ndax defu fi loo xam ne nii sax war naa tax mu koy tàllal loxo ne day bëre ak moom mu mel ni kii nag jamono jooje moom tontu la daa mel ni génn na wala bu Balla waxee loola moom fa nga xam ne nii mooy record moom buñ fa demee way juram bu góor di duubalees moom la mu gis mooy loola Balla wax moom la engagé waaye jàpp na ne Balla moom da ngay bërëg booy ñang ba mu sap-sap lees a wax lii ne na ko leer ba leer daal yaag booy ñang combat la te da ngeen di bëree mu mel ni ki lees moom loola la xëy tey di ko wax ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb waaye keneen koo xam tamit ñëw na ca combat booba wax ca muy ki nga xam ne nii moom moo di man Diop mu mel ni ki moom itam la mu xëy koy wax la daal nee na Balla na wax lu leer nañ bu dee day bëre ak Boy Niang na wax bu dee bëruwul ak moom itam na wax waaye loo ci mën a dégg daal na leeral nit ñi ba mu leer nañ mu mel ni ki daal coow loolu fi mu nekk ni ñu ngi koy coow jeexagul waaye lees moom la mu xam le ca record daal ne na ko leer na de li ma la wax mooy am Balla day bëre ak Boy Niang loolu mooy waxi Double Less waaye amateur tamit joxe nañ ca seen kàddu mu mel ni ki Iba Mar Diop daal démb gaaya ku ci ne joxe nga sa kàddu ci combat nga xam ne nii mooy fi mu nekk nii beneen combat boo xam ne nii moom coow la te ñu fixé ko la 5 avril mooy diggante Papa Sow ak Siteu yëglikaay bi moo xëy tamit wax ñu ko ne ba bu léegi leer na keneen koo xam ne tey xëy na ngar daaju yëglikaay bi wax fa ay soxlaam mooy Gris 2 daal la mu xëy di xam xamle moom nee na li leer ba leer day moo xam Abdou Diouf la wala Elton wala Jordan wala doomu dàngu Abdoulaye Ndiaye proposé na ko ñooñu te itam jàpp na ne moom pare na ngir ku mu ci doon rek mu jàmmaarloo ak yow def ak yow nee itam moom Fass waa la pour 100 mu koy leeral moom Gris nit ba ñu teg moom nangu na ko xaatim na ko te ca lay ànd mu mel ni kii daal loolu moom tamit mooy ay waxam tey ak yeneen yoo xam ne wax na ko mu ngi ci biir yëglikaay bii nga xam ne nii moom moo di sunu làmb waaye li leer ba leer daal Gaston Mbengue moom ñëw na fa nga xam ne nii moom moo di ca record moom nag la mu xam ne daal nee la leer nañ benn làmb boo xam ne daal intéressé na ma amul bu ko ko kenn waxal waxut waxi lamb tey suba waxi noppi ka nga xam ne moom am na combat wutali réewum États-Unis mooy Modou Lo jaare ji France record moo xëy ñëw dañu wax lu mel ni ki noonu waaye li leer ba leer moom weekend bi tàngoon na jir ak ay làmb bu dee ja stadium Iba Mar Diop la Fallou Ndiaye da koo defab doom ca samedi ja ñu ne déet ne waay dimanche ga ñu dem arène nationale mbay yi ki ni wàcc fa wàcc bu bees moom itam yëngal ko ba mu yëngatu waaye samedi ja moom aada faas ak bébé bis mi combat boo xam ne neexoon na lool bëriwun buru coow waaye aada mujj yóbbu ndam la mu mel ne ki daal jël bu rëy rëy rëy la aada faas daan ka nga xam ne mooy bébé bis mi bu Cambérène nekk écrit dóor dóoraat mu mel ni ki loola moom mu nga ci Leewtoo TV waaye dañ caa yemul de dimanche day tamit dañoo fekki mbay yi ki ni la leer ba leer jël ba nga xam ne nii moom la deux siga daan kaaw gourne des koy waxtaane ba tey la jël mu yokku ko yokku ko yokku boo xam ne daal gisatul déggatul mu daan ko jëli bu rëy rëy waaye Ronaldinho itam moo bëre spécial ba def na fa yëfi Ronaldinho ndax ka nga xam ne nii daal mooy Clémenceau jël ba mu ko daan moom rëy na xeetu rëy goo xam ne buddi ba ca kaw fëgg ko ci suuf jamono jooja nag moom Iba Mar Diop Pape Abdou Fall ña mu àndal feesal nañu ko dell ak ka nga xam ne nii mooy ministre taar Ba ministre des sports ba nga xam ne nag moom lañ tudde woon làmb ja 6 millions lañ fa tegoon démb boo xante ba meloon ni bu ma la ko waxati Eumeu Sène ñëw na fa Reug Reug ñëw Tine ñëw Boy Niang ñëw mu mel ni ki dem moom Mar Diop moom toq suban la woon saañ ba réer waaye li leer ba ren nag final ba diggante Franc la woon ak ka nga xam ne moo di booy fay Franc nag gagné ko par ay avertissement loolu tamit fekk nañ fa fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV waaye li leer ba leer daal lu waaye waxa di waxe itam xam nga ne dund am na waaye day day am ndax buur géwél mii nekkoon XFM daan nekk ci làmb ji animé moom la yàlla def mu génn àddina yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko waaye di jàll tamit jéey seen buur géwélam ba nga xam ne moom génn na àddina déem te denc moom lu nuy def lu ñuy wax rek na doon lu rafet te ni yéeneente jàmm ndax nag yàgg maar dee day ñëw de te kenn xamul kañ la yàllaa ko wax tey waxam du dañ kullu nafsin la wax saa yi xatin mawtin looloo leer yàgg